waaw.

ak Boy. disons il attend ce que Diène doon def dix jours à peu près. waaye Boy démb laa koy doon gis moom dafa dafa demoon tëdd nelaw moom. saa yi moom bi mu génnee rek jëm na waaye Boy defe naa barki démb laa koy doon gis. masawu leen coono di leen jaajëfal suñu ak turu baax dans sa tur Sénégal yëpp parce que yéen a ngi def liggéey bu am solo liggéey la boo xam ne ànd naa comme ñun ñëpp li ñuy def. mais yéen a koy def ak engagement professionnalisme damay wax ni suñu diggante diggante sécurité ak fu ñuy protéger du xaalis sañu boole vous totalement engagé dans le projet nous sommes tous des frères donc il y aura des hauts mais fi jëm dafa laaj loolu may fàttali rek ni euh, li ngeen di def yéen koy def professionnalisme di seede ci kanamu Sénégal yëpp li ñu leen mos a jox comme règle ci ni ngeen war a fonctionner mooy mosuñu leen sant ngeen attaqué kenn kenn mosul gis ngeen jot def attaqué nit sant ñu leen ngeen attaqué nit nii verbalement ci wax sant ñu leen ngeen attaqué nit ci euh, jëm liñ leen sant mooy ngeen sécurisé suñuy personnes ak suñuy convoi ak oto yi di def parce que ngeen mos a def waaye dañ leen mos a sant it ngeen réagir. vigoureusement bu dee attaque am na loolu du ma ci dindi dërëm mooy ñun ñu joxe suñu bopp ay nit jóge fële yor seen i gànnaay wala yor seen i xeer wala yor seen bant ñëw di ñu dóor dañ ko def donc lañ leen wax mooy saa loolu amee na ngeen réagir ci nu mu gën a dëgëre parce que loolu kenn sant ko kenn te loolu song nit duñu song mais duñu seetaan nit toj suñu bopp. dóor ñu gaañ ñu duñu réagir loolu moo xew keroog fële ci ciki kon ñu ngi leen di félicité ndax vous avez été très professionnel su ngeen def jour boobu professionnel ba kan mën na tuuru foofu ci dëkk la kon vraiment jërë ngeen jëf di wax tamit ni dinañ jël matuwaay yu gën a bëri ba lu amat it àdduna bi yëpp dina doon seede def naa désormais fu ñuy demat di ngeen yor ay caméra embarqué ba nga xam ne lu am seet àdduna bi yëpp koy gisandoo à temps ñu xam ni lii jaaduwut ndax donte ñi ngi sant yàlla bu dee ñaar ñi bàyyi lañ leen yéen ñett sax dañ ko bàyyi noonu ndax dinañ dugal appel ndax waw ñu doon a produire benn fan waaye dinañu gën a jël matuwaay ba yi bu amatee seede day nekk danaan fang te kenn ko mën a wecc moo tax ñu ne ci li ngeen di def di ko defal parti bi di ma ko defal di ko defal Sénégal ñu ngi leen di gën a félicité waat bu esprit bi ngeen ciy demee ndax amul kenn ci yéen koo xam ne wane na signe de faiblesse du benn yoon ndax yëpp xam nañ seen stratégie mooy lu ñuy def ba kase suñu moral dégg ngeen démb jàpp nañ Fatou Ndiaye ndax gis nañ ni mooy coordonné nemmeeku tuur bi jàpp nañu bu ñu ko jàppee dina kase suñu élan te tey la gën a mën a def nemmeeku tuur dëkk naa sax ba moytu ci fan yu néew suba wala gannaaw suba wala en tout yi dinañu reprendre dinañ leen ko tuur di wax tamit di lancer waat un appel ñëpp nañu waxtaan ak seen njaboot te di leen téye ndax ñi def provocation bi ndax du mën a leen ci ñu jëlee ci lu métti ba pare ñoom yéen bu ñu leen jàppee weer ñoom jàpp nañu fa ñaari weer kon lu ko fi jaroon ñi leen nax. waa nguur gi leen ndax di leen jox al ay cinq mille leen dem leen sànni xeer wala dem leen saaga est-ce que lii jar na ko yow mii ñëw tooñ jëlee nga ci lu métti ci sa yaram ba pare yaa tudd lu gën a yàgg kon loolu loolu li muy firndeel rek mooy tooñ du gàllaaj tooñ amul njëriñ ñun duñu mus a tooñ duñu song kenn waaye am nañu sañ-sañ en tant que citoyen dox suñu soxla ñoom bu ñuy dox seen soxla kenn du leen attaqué kenn leen sonal waaye lan moo waral ñun suñuy dox suñu soxla ñoom ñuy jël ay nit di ko di di ko teg suñu kaw may gën a firnde fii wax ko sénégalais dégg ko di wax ñépp lañu téye seen njaboot am na loo xam ne jaru ko fi nemmeeku tuut jàmm la ñuy dox dem seeni sénégalais yi fa ñu dëkk dajeeg ñoom seeni biir kër waxtaan ak ñoom ci suñu gis-gis déggu seen problème loolu kenn mënuñu koo tere kon Macky sal ak njabootam nañu yem te toog. te bàyyi provocation yi te di gën a woo justice nag mu gën a xool toujours kan moo xool ndax ñu ñi jóg dem di doxi tànki jàmm amuñu benn intérêt dem xuloo nit wala ñuy xeex ak nit kon gars yi félicitation encouragement léegi nag ñaar moo mën a am soit dañuy ànd dem saal léegi wala da ngeen da ngeen di wóor une semaine une semaine parce que saa yi moom boo gëm naa ñu mënut a saa yi moom defe naa léegi nekk na cent cinquante wala cent soixante te loolu baaxul xam naa ñii seetaan maa ngi mel ni maa ngi mel ni pare gis nga dafa ñu teg loolu wax lu baax quoi en tout cas félicitation et merci félicitation ak yeneen ñëpp dañu leen vraiment jërëjëf. merci beaucoup Sénégal yi dina fi maa leen di def. Merci, merci, merci.